sept personnes ngi nii yoo xamante ne maanaam juróom-ñaari nit yoo xam ne keroog yomal xiyam yàlla bu wàccee naaj bi ba ñëpp di lakk nga xamante ne daanaka nit ñi naaj bi dafay tàng jër jër jër jër juróom-ñaari personnes yooyu noon duñ ci bokk xoolal ba xam di nga ci bokk yow wala doo si bokk seetaan na vidéo bi ba mu jeex avant loolu su fekkee abonné goo ci sama chaîne YouTube bi maa ngi lay demandé nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partagé ba keneen mën see jëriñu wala ñeneen mën see jëriñu nga partagé ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ad daallu ki nga xamante ne mooy tegtal lu baax moo ki koy def ñoo yem salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan jàmm fu mën mënti nekk di ko sàkku si yéen di leen baalu àq ci tabaski bi nga xamantene ci lañu genn di len bal ax di ñaan yalla mu booleñ jéggal ñu fekkee tabaski bi ay at yu bare bare bare bare bare may ñu gudd fan ak tal ñu mën ko di fekkee ay at yu bare bare bare juroom ñaari personne yi nga xamantene manam maanaam sept personnes yi nga xamantene ñom ñoom lañ wax ne yalla daf leen di keral manam jour bi nga xamantene yomul yalla da fay am naaj bi jër jër jër yalla wacc jant bi ba jant bi jégué lool ba ñepp di joy naaj ñoom façon juróom-ñaar yooyu jant bi keroog du leen laal ñoom dañuy am ker maanaam seen coono du demee noonu noonu ñan la ñooñu laataa may yéegali mbokk yi du ma denc la présenté ki nga xamante ne moo suñu ñu koy wax Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda ni kam ne dafa yëngatu ci wàllu médecine li nga xamante ne moom la ñu wax Habbatu Sauda Habbatu Sauda bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na lépp lay faj ba mu des dee allah jamono yi may wax ak dañu leen indi benn karité boo xamante ne macha allah karité bi luñ si defar dafa bëri lool lool ni ki ay cat ay làmmiñ ak ay yu bëree bëree bëri ak fépp foo xamante ne sa yaram dafay métti soo utiliser karité incha allah mën naa am nga am saafara karité bi nekk karité bu baax macha allah ñu ko utiliser ñu bëree bëri gis si ay résultats képp koo xam ne nag am nga sa yaram foo xam ne dafay wala nga jànkuwanteeg ay karaw yu ruus wala yu ni mel wala daal ay feebar yoo xamante ne feebar yu bëri la yoo xam ne daf ñuy sonal ñun ñëpp rek gaawal nga contact si Habrul Sawda incha allah di nga fa am li nga xamante ne mooy solution képp koo xam ne nag si Sohiboul Sawda intéressé na ko mun na ko contacter ci numéro bi 77 661 52 32 77 661 52 32 nga woo si Sohiboul Sawda incha allah di am solution kon si Sohiboul Sawda daal seen wér-gu-yaram moo leen tax a jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sabaatun yuzilluhum allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mu ne juróom-ñaari nit a ngi nii yoo xamante ne wala juróom-ñaar a ngi nii ñoo xamante ne dañuy am ker keroog bi nga xamee ne yomal xiyam ker du am ñoo am ker subhanallah waaw juróom-ñaar yooyu ñoom loolu lañ war a def te benn boo ci def yow maanaam benn boo xamante ne def nga ko rek xamal na yow si nga bokk te juróom-ñaar kese la yan juróom-ñaar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na imaamun aadilu mu ne njiit bu maanu njiit bu maanu mooy moo xam yow chef de quartier ga moo xam gouverneur nga moo xam président moo xam sax sa biir kër say soxna maanaam nit koo xamante ne yow da ngaa jiite ay nit ba pare nga maanu xooloo xa ak seen xooloo nag kii laa gën bëgg xooloo kii moo farag man rawatina ci ñi nga xamante ne ñoo yor réew mi wala ñu mel yow xooloo kii man la àndal xooloo ànd ak man xooloo kii sama mbokk la xooloo si dara yow daal da ngaa tegu si njub bi sallallahu nee na keroog yowmal qiyaam bi nga xamante ne ker dafay manqué nga xam ne quelques personnes rek ñoo koy am nee na yow da am ker subhanallah kon nga gis ne njiit nit ñi bëgg nañ ko lool waaye nag nekk na lu jafe-jafe-jafe parce que lu si gën a jafe mooy jubal ak maanu te maanu boobu nag li tax yàlla bëgg ko moo tax mu lay tegal ay neexal nee na la boo maanoo incha allah keroog yoom la xiyam de bi nga xamee ne ker du am naaj rek mooy am yow da ngay bokk si ñi nga xamante ne dañ leen keral deuxième personne bi nga xamante ne yàlla daf koy keral jour boobu nga xamante ne ker du am mooy shaabun nasha'a fi ibadatillah waxambaane bo xamantene ne jeune bo xamantene ne ko ut lu nek mën nako am mën na def lu nepp mën na def jeune le machallah allah natu ko dara waye nak lu ko yalla nattoo moy mom, dafa magisi dini, dini man dafa sosu ci li nga xamantene ne jamu yalla bam nekké xalé bo ñëwé ah so xolé xalé ñim na and yëpp dañ ah wax dëgg yalla ki de mom ah fu ko fekkante dañ dem jumaa dañ daan jëm julli ba ni màggee manam wax manam yëpp daf ko def ci jamu yalla koku dafa bok ci ñi nga xamantene dañ leen keral yombul waxambaane àddina ni mu la joxee buntu nga am doole kàttan macha allah am wér gu yaram lépp soxla la seytaane soxla la jigéen soxla la xaalis soxla la turu soxla la nga def fa lépp ñukk dem wuti yàlla lu jafe la lu jafe la lool trop sax léegi nag su la yàlla dimbalee ba nga mel noonu nag xamal ne bokk nga ci ñi nga xamante ne yàlla daf leen di keral keral bi nga xamante ne ker dafay rafet personne bi nga xamante yàlla daf koy keral keroog jour bi nga xamante ne ker dafay rafle mooy wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mooy waajoo xamante ne xolam dafa taqoo ak jumaay su julli jee taksubaar takusaan maanaam bu demee kër ga sax moom mi ngi xalaat nu mu a demee ba julli takusaan parfois sax mu julli tisbaar pare mais dafay toog ba takusaan jot maanaam dafa bëgg jumaa tellement lépp lum am rek wala lépp lum soxla rek ci jumaa ja lay dem ñaan fa mu mooy liyam moom mooy delluwaayam mooy këram daanaka yàlla la ko bokkal kooku tamit na xam ne bokk na ci ñi nga xamante ne yàlla daf leen keral bëri na ci ay nit am na nit ñoo xamante ne dañ leen gis dañuy jumaa trop fajar ñu ngi fa tisbaar ñu fa tàkkusaan ñu ngi fa timis sax suñ julee pare au ñu dem ñibbi mais dañuy toog jumaa ja ba gee ñu def seen safa wétër ñaan yàlla def nangam maanaam bëgg jumaa lool lool lool kooku de na xam ne wala yéen tamit sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci ñi nga xamante ne yàlla def leen di keral keroog jour bi nga xamante ne ker dafay raflé quatrième personne bi nga xamante ne jour bi nga xamante ne ker dafay raflé yàlla dina ko keral mooy wa rajulaani taxaaba fillahi ijtamaa alayhi waftaraqa alayhi ñaari nit ñoo xamante dañoo bëggante ci yàlla yàlla mooy tax ñu ànd yàlla mooy tax ñu taxal ko li loolu ñaar ñoo xamante ne yow mbiru yàlla moo leen boole maanaam ci liggéeyu yàlla wala moo xam jàng alxuraan wala loo xamante daal ci yàlla la nekk ci affaire yàlla la moo leen boole su néewtoon loolu duñu ànd exemple man damaa gis ma gis la yow ngay jaamu yàlla ma xam ah kii de day jaamu yàlla man tam ma bëgg jaamu yàlla ma bëggee la ndax loolu ñu ànd si lool di jaamu yàlla nga xamante ni man su ma xëyoon tey bàyyi jaamu yàlla nga bàyyi ma ma xam ne tamit man tamit soo xëyoon bàyyi jaamu yàlla ma bàyyi la nga xamante ne ànd bi dara taxul dara taxul lu dul jaamu bi nga xamante ne moom la ñuy jaamu yàlla ñaan ñooñu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na keroog tamit dañuy am ker gu mag a mag cinquième personne bi nga xamante ne dafay am ker keroog yawmal qiyaama nga xamante ne dafa tàng jër jër jër jër moom dafay am ker mooy wa rajulun daathu imraatun zaatu mansibin wa jamal fa qaala inni axaafu allah rabbal alamin waa joo xamante ne boo xambaane boo xamante ne mën na sëkk dara jotu ko jigéen ju rafet jigéen joo xamante ne mën na sëkk tamit am askan bu baax am place bu normal ci société bi woo ko ci boppam ne ko ah man de dama bëgg ñu def lo xamantene du yoon manam ñu njaalawal dara mu tudd ko lan inni akhafu allah rabbal alamin dama ragal yalla xam nga loolu yombul goor bu mat seuk di yegli goor di digen jigen wola ci bopam jigen diam xamantene manam lepp lu jigen di am amna ko rafet na ci famille bu bax la bokku ak tamit manam newul jigen mom da jaay bopam nek jigen bu normal mu wola ci bopam ne la mana, soxla nga daw man ah man dama ragal yalla subhanallah indi sallallahu alayhi wasallam neena nga am ker jour bi nga xamantene ker lay ñak jafe na de jafe na lool sax léegi nga xamante ne góor yi sax far yàlla ñooy dem di wuti di wëri di rëbbi di xool fa lañ ko mën a amee yow nga gis koo xamante ne daf laa woo sa si boppam nga nekk ab célibataire bu mag wala nga nekk koo xamante ne yow mosoo am xam loolu ñu woo la nga xamante ne yaa ngi toll ci fu góor di soxlaa lool nga ne ko da ngaa ragal yàlla hmm. sixième bi mooy wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta laa taalamu shimaaluhu maa tunfiqu bi yaminihi mooy waa joo xamante ne dafa saraxee sarax boo xamante ne yàlla kese moo tax mu def ko yàlla kese kenn yëg ko wuu exemple nga fekk benn kër wala nga fekk ab nit ñoo ne ñoo soxla dara nga bàyyi bu guddi nga yëkkat sa alal bu bëri wala lu takk ñëw defal leen ko nga xamante kenn gisu la sax yow ñu ngi koy defal sax gisuñu la kenn gisu la nga xam ne loolu yàlla kese moo tax nga def ko kese kese kese kese dara taxul du tur du nit ñi gis ma maanaam amul daraay gistal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tamit dafay bokk ci ñi nga yàlla daf koy keral xam léegi saraxe yomb na ñu bëree ngi saraxe ñu ngi def nangam waaye bala ngaa saraxe taal say caméra bala ngaa def say yu baax taal say caméra woo leen ñi nañ ko nit ñi gis nangam sangam wan leen incha allah salaamaaleykum na ngeen def yéen ci jàmm wane say affaire xam nga loolu baax na mën na baax mais nag doo ñi nga xamante ni bool la si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ne yàlla teen keral ndax yàlla ñi muy keral dëgg mooy ñi nga xamante ne dañuy saraxe taal caméra duñ yónni kenn wala duñ duñ duñ wane kenn nga xam ne yàlla kese moo tax incha allah di nga kontaan septième personne bi nga xamante ne yàlla nee na daf koy keral keroog jour bi nga xamante ne ker du am te moom la ñu tëjee seen vidéo bi mooy wa rajulun zakara allahu xaaliyan fa faadat aynaahu mooy waajoo xamante ne dafa xalaat yàlla wala dafa tudd yàlla ci wéet ba ay rongañam di toq exemple nga doon tudd tur yàlla boo xamante ne yoo xam nga ne tur bi lu muy làmboo yoo xam nga ko dëgg-dëgg yaa ngi bàyyi sa xel dëgg-dëgg exam nga ay qahar tur yalla yi mag yonon ngay wax di xam di xalat di xalat di sori yonon ba say rongañ tok wala ngay tok di xalat ci yalla di xalat yalla ay safaram num tangé ay aljanam num nang ak yalla lu meuna def te def ko ak yalla lu mu la yërëmee ak ngay xalat ci yalla deug deug deug deug ngay do nga tok ba sey rongañ nga xamante ne rongañ li la moy li nga xalat yalla xamal ni inshallah allah di nga am li nga xamanteni moy mooy jour bu kerul am kon mbokk yi juróom-ñaari personnes yaa ngi noonu fi la ñuy yemale vidéo bi gir mu bañ a gudd ñu leen fàttali rek su fekkee abonné ko nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partagé ba keneen mën si jëriñu nga partagé ko salaamaaleykum wa rahmatullah